islam rek lañ am islam boobu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko indi mooy ki nga xam ne moom la yàlla tànn muy sàppe yàlla yàlla tànn ko muy mu jóg yonent yi dañ ko yónnee gannaawam yonent mënatu ko nekk alquraanam gannaawam téeréem mënatu caa topp diine lislaam bi ñu indi gannaawam diine mënatu caa topp yàlla wax nañu ne inna diine lillahi lislaam diine sa yàlla mooy lislaam téeréem bi itam baax na di ko dikkee kanam di ko dikkee gannaaw te am na ñun amul lu ma jàpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kenn ci yéen du gëm fee gën a lu mu ko doomam ak baayam ak ñu ñëpp sidna amoon na ko yow de yaa ma gën a lu ñu ñëpp wala def la def na ko moo ko naa ngi jëm ci yàlla nga xam sama bopp bëri dañuy wax bàyyi jàngul gëdde waaye soo maam mi nga xam ne moo njëkk ci kër gi nee na ma bi muy ñëw fii mu ne su nit ñi tàggoon ak bàyyi gannaaw gee dana taalal bàyyi sondeel mu tiim sondeel bi di jàng ba mu jeex mu taalal ko bu ñaareel mu continuer di jàng ba mu jeex mu taalal ko bu ñetteel su xaajee rek ñu nodd fajar ca jumaa ja mu dem julli ji soog a ñëw tëdd te guddi ñetti sondeel la gannaaw guddi gu nekk daana jàng ñaari sondeel ak genn wàll seetal kon lan la desal ci guddi waaw dégg nga te àll àll guddi ku raw say morom rek ci nga leen rawee waaw ndax bëccëg bi ñëpp a njàcca ñëpp a ngi lay xool ci nga loo def nit ñi def ko waaye guddi nag déedéet du pour ñëpp de waaw guddi moom du pour ñëpp ñii biddiw lañ ñii weer lañ ñii dinañ suux soo mënta nekk guddi soo mënta nekk jant soo mënta nekk jant pour dundal bëccëg bi yëpp nekkal nekkal weer waaw dundal li ëpp ci guddi gi nga suux wala nga nekk biddiw boobu soo fekkee ba mu yàgg nga suux waaye boole yëpp rek tëdd nelaw warut de waaw su amee rek rëcc rëccul nañu ngeen góorgóorlu bu baax te jàng te li lay xamal ne moom téere ñu jàng na ko lettre bi ma mujj binduloo fii mu jëm ci ilimaani Banjul imaam dafa yónnee di laajte benn masala ci diine ji pour toxal jàkka ji wala julli ajjuma gi place bi ñu ko doon defee yóbbu ko ci beneen place bàyyi omo wax ma benn téere téere boo xam ne nekk na fukki volume ak ñett kan la fukki volume ak ñett mun na ma demal nga seet ci volume numéro 4 chapitre nangam da nga ci fekk masala mi nga jàng ko nga bindal ma leetar tontul ma ko ma dem seet ko ba gis ko indil ko ko mun na ma xam nga kañ laa gëj ci téere bi dama ko gëjee ubbi ak tey ñeent fukki at ci ren allo ak sa xam-xam ñi ñi dem àllaaxira sax te am xam-xam ñu ëpp daraja ñi amul ñi amul xam-xam ndax ñi xam ñi am xam-xam xam nañ li ñu war a ñaan daraja yi ban daraja moo ci topp daraja illi yi naag yooyu yëpp xam nañ ko maq addi sitkan waaye soo jàngu yooyu yëpp doo ko xam nekk ci sa xaar gannaaw dañ naan la mébétal loolu defal ñu loolu mébét ñu defal la ko su fekkee nit ki jàngu dafay mébét lu kii rek ma defal benn pale rek mu fa mën naa cee nopp lu nanga waaye déedéet man dem pale ca kaw ca jëmmi yàlla ja rek yaa nga ku jàngut doo xam loolu yaa nga te sama bàyyi bi ma jógee hôpital ak bàyyi dama ne ko bàyyi de benn bés dañoo takkoon benn pikiir ci loxoom waxtu yu jot mënta jàpp mënta mënta tiim mu ne man nu may jullee tey man mënumaa jàpp mënumaa tiim fi ne ma ne ko bàyyi bul julli tey man boobu maa ngi jàpp rek laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa yàlla tegul benn jaam lu mu attanut bàyyi ne ma loolu la imaam Malik wax wa man lam yajid maa'an wala mutayammama fa arbaatul aqwaali yaxkiina mazhaba yusalli wa yaqdi aksa ma qaala malikun wa asbahu salla wal adaau li ashhaba mu ne ma loolu la Malik wax maanaam soo demee ba mënatoo jëfandikoo ndox mënoo jëfandikoo tiim dañuy wax ne ñeenti atte ñoo nekk foofu mën ngaa julli rek ci anam goo mën di jullee soo demee ba wér wala soo demee ba mën a jëfandikoo ndox nga fay wala li Malik wax Malik def ne laa yusalli wala yaqdi du julli te su demee ba am ndox wala tiim du fay asbax ne da ngay julli rek ashab imaam ashab ne da ngay da ngay da ngay fay dégg nga Malik nag moom daf ne laa yusalli wala yaqdi mu ne loolu la Malik wax waaye man damay julli man waaw waaw kon moom jël na ngëri Abul Qasim Abul Qasim moo wax ne laa yusalli yusalli wa yaqdi maanaam nga julli te waxtu woo mën a jëfandikoo ndox wala tiim nga nga fay dama nettalee sama bàyyi loolu nettali ko bayti bàyyi tari mu ne ma nit ku garde xam-xamam ba tëdd ci lali dee garde sa xam-xam dégg nga loolu nag jàng moo koy maye waaw bu doon ndax soo soo demee ne soo gisee ne ñoo bàyyi dëgg la am na may yàlla waaye góorgóorloo ngi ci biir ndimbal daf cee fekk loxol borom waaye toog fii rek foog ne bàyyi mi dafa juddu nii rek am xam-xam am alxuraanam fi nit ñi jaar rek jaaral nañ ko comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alxuraan ñoom ñëpp ni ko nit ñi di jàngee ne la ñu ko jànge malaaka mi daje naag yonent bi njatt ko njattaat ko nangam nangam donc bàyyi itam daan nañu wan benn liggéey fii ci tànk mu ne balaa mer rek jigéen nekk ñëw ci kër gi naan ko sëriñ daara bi dóor na sama doom mais man sama bàyyi moo ma doon jàngal te fii moom moo dóor ba gaañ ma fii dégg nga dégg nga ak gannaaw jàmbura lay jàngal nag lu mu la teg rek tegoo ko te jàng yàggut bàyyi daf daa wax mu ne jàng yàggut ñàkk jàng moo yàgg jàng yàggut ndax lan su fekkee ne junnee junnee page la wala junnee ligne la sax bari bu soo jëlee benn ligne su yàggee mu ja waaye soo toogee jàngoo benn li du jeex mukk waaw ñàkk jàng moom du jeex mukk jàng moom dana jeex waaw su fekkee ne téere bi téeméeri page la ba bu seen nga jàng ci benn page wala genn wàlli page sax soo ci defee ñaar téeméeri bés wala ñetti téeméeri bés maximum mu jeex waaye su fekkee ne ubbiwoo ko sax da ngaa toog rek te di nelaw nekk ci leneer kon téere bi du jeex mukk te ngeen di dimbandikoo itam di jàpp di garder seen i njàpp imaam Shafii bokk na ci borom xam-xam yu mag yi ci xeet wi moom mooy borom ngiri Shafii wax suñ ne Malik ñun Malik ngiram moo gën a tasaaroo fii ci suñ sow jant ci ñun Shafii boori Égypte ak fële ca Asie imaam Ahmad ibnu Hanbal ak Abu Hanifa te ba pat ba tey imaam Shafii boobu mu ne dafa dafa dafa jàmbatal sëriñam ne ko moom daal dafa naqadi xel wala du gaaw a dégg daal waaw mu ne ko maa ngi lay digal ci nga bàyyi mooy yàlla maa ngi lay xamal itam ne xam-xam leer la te leer ak yàlla gi yàlla du ko jox mukk mooy katab yàlla moo tax ñu bëgg sopp nañ waxtu wu nekk ci jàngkati xam-xam muy muy takkoog njàppam waxtu woo waxtu woo takkoog sa njàpp rek yow yaa ngi ci leer xam-xam leer la soo jàngee rek da ngay gaaw a dégg dégg nga ak xam-xam bu mu mën di door rek soo ko jàngee ngir àddina itam moom su xam-xam dikkee rek dana nekkal yàlla moom imaamul Ghazali bi bàyyeem di gaañu daf ko daf leen a bàyyee benn dëkkandooram moog rakkam Ahmad kooku ba mu jëlee seen tërika maanaam di leen seen bàyyi bàyyil dépensé ko ci ñoom ba mu jeex da wax ne aha yéen kat li ma seen bàyyi bàyyi woon ci xaalis jeex na léegi nag maa ngi dem pour jéem leen a fexe dugal leen ci madrasa yi madrasa nizaam yi maanaam école yi gouvernement bi ci jamono jooju nga xam ne soo fa nekkee ñoom ñu lay ameel dëkkuwaay ameel la lekk ñoom idée boobu moo leen yóbbu ci madrasa dem ndax ñoom fu ñu nekk am lu ñuy lekk ndax la leen seen bàyyi bàyyi doon jeex na te leneen sa suuf waaye bañ demee jàng seen yàlla ubbi seen xel yi ñu jàng jeexal foofu jàng jeexal nangam nangam ba xëy nekk ay borom xam-xam moo tax mu wax ne talabna al ilma li gayri llahi fa aba an yakuna illa lillah ba ñuy sàkku xam-xam dañ ko doon sàkku ngir mu lu duur yàlla maanaam ngir am dëkkuwaay ak lekk ak nangam nangam waaye xam-xam moom su ñëwee rek yàlla rek lay nekk waaw moo tax dañuy wax ne nga am borom nga am noonu noonu noonu boo xam ne jàng na moo gën nga am xarit boo xam ne jaayil la waaw noonu bu jàng am na yu bëri dugg la du la ko ñëwee def waaw noonu bu jàngut nag moom lu xelam daj rek mën na ko def ci yow waaw xarit bu jàngut itam su la bëggee dimbale sax mën na laa loraat waaw ndax xamul lu mu lay def xamut waaw moo tax yàlla wax ci alquran ne hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun ñi xam ak ñi xamul duñu am mukk mukk mukk mukk mukk dégg nga amut du benn bàyyi fii ci këram sax am na ñenn ci ñun dafa naa hey li may muñal diw ak diw bokk ci bokk leen ci yéen de maanaam yéen xam ngeen li ngeen war a def li ngeen def rek dañ leen ko war a at dégg nga ku jàng lu mu def rek natt na ko ci xelam ba xam di nangam nangam nangam ak conséquences yi ci nekk yëpp xam na ko bala ciy dugg ku jàngut na xamut li muy def sax résultat ba ciy topp itam yoonam nekku ci dégg nga moo tax na ngeen góorgóorlu jàng bu baax te bu leen jàngantu itam waaw lépp lu ngeen di xam rek na ngeen ko xam mu leer waaw am nañu yàlla boole dimbali yàlla wattuñu wattuñu ci lislaam wattuñu ci gëm yàlla kenn sallallahu alayhi wasallam barakallah جدا حلو الحديث في تعليق واحد وعن صفر
ay salaam moom suñu mbokk étudiant yi yeewoon am ñaari question ba ñetti question Hmm.
boo ci joxee ndigal mu posé bismillah
benn bi mooy moom dañuy laaj maanaam nga parce que dañoo bëgg ci sunu exposition bi ñu def fële ci fële ci euh, Dakar ñu mën a am ñu mën a am tuut taarixu euh, jumaa ji euh, bi ko bàyyi sosee ak euh, imaam yi nga xam ne jaar nañ fi yëpp ba ba fi liggéey bi toll ci tey ak euh, garantie yi nga xam ne ba joxewoon na ko ci euh, jumaa ji ba fi ñu toll incha allah bu ñu demee fële euh, Dakar
waaw dinaa gàmmaat ci waaw incha allah ñëw waa jumaa ji bàyyi moo ko fi def jàkk moo fi njëkkoon a nekk bàyyi ñooy métti na jàkk jàkk ji tuuti lañ fi njëkkoon a def di ci julli di ci jàng wasifa yi boori 1937 ba muy ba muy aji ajeem gu njëkk sama bàyyi mooy bi muy di jógee fii la ko bàyyee xaalis ne ko na móol dafa bëgg su ñibbisee tabax jumaa muy 1355 ci hijra bi ci gàddaay yonent bi di 1937 dégg nga bàyyi nee na na dañoo oori mu jógee fi dem aji te tamxarit gi fii la ko fekk mu ne ba mu delsee aji ci ñetti weer dellu si mu ne réew mi yëpp di ko xéem waaw ndax bàyyam dem na ren ba ca déwén sa kenn déggut ci moom dara waaw yow nga dem ci ñetti weer rek dem aj Makka dem Faas dem Qaahira yooyu yëpp bàyyi jaar na ci pare dellu si nga ñëpp di ko yéem ba mu ñibbisee ci atam mooma ci la sémb jumaa ji itam jumaa joojo itam wax naa ne xanaa ñi fi njëkkoon ñoom ñooy taalibe yi dëgg-dëgg na jumaa jooju kat ak ni mu rafetee woon ci jamono jooju yëpp ci benn at lañ ko tabax itam waaw te booba miskin yi nga xam rek ñoo fi nekkoon ak bàyyi waa Sénégal yi rek ay Mauritanie yi yëpp Nigeria jëmbal jëmbal ji yëpp bokkuñ ci woon ci jamono jooju yëpp bokkuñu ci woon tey nag bi ci ñëpp bokkee ñun seen beneen jumaa 1958 pour yàqale bii te ba léegi sotteegul Hmm, moo tax daje samedi bi gab- daje gàmmawaat gi na ngeen ci góorgóorlu de joxe seen bopp de waaw dégg nga si Ahmed Sukayri ji dafa bindal bàyyi taarixi jumaa ji maqaamu Ibrahima man daxalaw kaana aminan bi hudaahu mu ne maqaamu Ibrahima maqaamu Ibrahima képp ku ku ci dugg rek da nga mucc ci njubam soo calculé baat yooyu rek moo lay jox taarixi jumaa ji at niñ ko fi sant muy mille muy mille trois cent cinquante cinq dégg nga maqaamu Ibrahima man daxalaw kaana aminan bi hudaahu mooy tolloog mille trois cent cinquante cinq xam nga ci arab arab fu nekk dafa am euh, chiffre bu muy tolloot alif benn la baa ñaar la jiim ñett la daal ñeent la demet ba ba ngay demee ci laam muy fanweer miim di ñeent fukk nuun di juróom fukk ba ba ngay demee ci junne ci junne la am muy chine dégg nga Eh, ba ñuy tabax jumaa ju njëkk jooju ca 37 gaa ñi daje di di joxe ñu ne Baye El Hadj Omar Kane moom moo joxe woon junne boobu ñu ne ñu jóg di jàngal nit ñi junne su ngeen xamul junne mooy fifteen ba muy fukk muy dërëm dërëm ba muy fukk muy fukki dërëm fukki dërëm ba muy fukk muy téeméer téeméer ba muy fukk nag mooy junne loolu la kiy joxe mais noonu lañ ko doon waxee di jàngal nit ñi lan mooy junne dégg nga kon booba junne rëy na lool dégg nga mais fi mu ne nii nag ñun million lañ soxla jëm kaw dégg nga waaw jumaa ji nag ku nar a texe rek ku texe ak ku nar a texe rek ñoo ci liggéey waaw du na xaalis bu nekk lay nangu itam waaw ku texe ak ku nar a texe rek yow la ci sa sa liggéey di dugg moo tax na ngeen góorgóorlu ba dugal ci lu ngeen am dégg nga waaw maa ngi déggee ci nit ñi ne bàyyi wax na ne su jumaa ji pare étage étage yi ñu bëgg a tabax dana taxaw dégg nga waaye loolu itam jar na ñëpp taxaw pour jumaa ji taxaw dégg nga comme ni ngeen ko waxee woon keroog gàmm ga dëgg la buur Maroc jël na initiative pour mottali ko waaye am na yu sew sewaan yu bari ci jumaa ji ñoo xam ne ñun ñoo ko war a defal suñu bopp te olof dañuy wax ne jox la lépp nga jël lépp itam du xel dégg nga su fekkee ne wax nañ ne liy rafetal jumaa ji ci biteeg tàppaat kenn du leen di wax jumaa di waxaale tàppaat kenn du wax di wax jumaa naan nañ ma defal ay toilette pour gan ñi nañ ma defal ay néegi gan pour gan ñi classe yi ci kaw nañ ñu ko liggéeyal ñu waxuñu woon madrasa jumaa la ñu waxoon te li ñu waxoon ñoom dëgg-dëgg soo duggee ci biir jumaa ji da nga xam ne ñoom la ñu waxoon def nañ ko wala wala ñu ngi ci yoonu sottal ko xam na lu des ci bunt yi yoo xam ne itam bokkutoon ci seen programme ñun ñoo ko war a defal suñu bopp ak karo yi ñu war a def ci suufi jumaa ji loolu itam bokk na ci li nga xam ne suñu liggéey la ñun yooyu yëpp daal xam naa su taalibe yëpp dimbalante ci mbir moomu dana sotti ci nam gën a rafet ci nam gën a gaawe yàlla ñu ci yàlla dimbali ñun ñëpp te yàlla yool ñu ci itam defal ñu ci barke ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jumaa ji nag même njëkk bu bàyyi di ñëw fii séeréer yi nekkoon fii xam xam xamkat yooyu ñu am na ko fi romboon taxaw ne man de bato bato bi ma gis fii mu taxaw te fii géej nekku fi waxtu wu rombee rek dina wax ne bato bi ma gis mu taxaw fii te ci na solo kii yaa ngi jëm ca kaw nag te fii ndox nekku fi xam nga li ñuy wax ne su àllaaxira jumaa yëpp dañuy soppeeku bato waaw ku mës a julli ci jumaa soo ñëwee mën a mën a dugg ku ci mës a dugg julli soo demee doo ci mën a dugg dangay lab ci géej gi rek am ñu ci yàlla musal ñu ne ba bàyyi tabaxee jumaa ji njëkk yi mu ñëwee ne li ma gisoon de ëpp na lii waaye dundut nag ba gisaat lii waaw waaw xam nga jumaa ji moom na ko jekk bàyyi moo nekkoon ilimaan bi mooy ilimaani ajjuma su fi nekkul sama baay jiite noonu la noonu la nekk yoon ak moom moo koy mooy jiite julli juróomi itam dégg naa ajjuma ji ñu fi njëkk a jiite baay moo ko jiite ajjuma jooja topp sama baay moo ko jiite ndax da baay dafa tukki jox ko mu jiite ñu fi jógee itam lim bind ci wasiyaam bi ci affaire imaamatu bi jàng ngeen ko dangaa bëgg génn sa gerte boo amoon tool gerte looy waxee affaire gerte dañ ko bëgg a leeral parce que diwlin ak yooyu yëpp dañ ci doon werante daal te kii bi leeru ba waaw xam nga asaka gerte bàyyi dafa waxoon na waruñ koo génne ndax seen bàyyi loolu la waxoon mooy masala ndax seen bàyyi ba muy dem Màkka réew yu lislaam bu mu wàccee daf leen di laaj ñaar fukki xeet yi nga xam ne dañ ci génne asaka yan la pare ñu leeralal ko ko yëpp mu génne gerte ne ndax bii ci la bokk ci ne ko bii bokku ci dem moom itam aji màkkam fii la jógee dem na Faas ak Misra ak Marsaay ak yooyu yëpp jaar na maamalaaj dem na fa biñ dëppee fii nag gannaawam nag waa Sénégal di ci weranteeti su koy ñu yónnee Ahmed Sukayri ca Maroc di ko laaj mu wax ne nañ ci génne asaka bàyyi nag bind ci téere boobu irshaadu saariin ila adami wujubi zakatil haariin dégg nga mu ne mu ngi biralal wala mu ngi jubal ñi nga xam ne doxkat yi mu ngi jubal doxkat yi ci ne génne asakaay haariin mooy gerte warut ndax lal indi téere ba sax mu ne ba leetari sukayri ñëwee ci maam xalifa mu jàng ko ne ah mbir dikk na de su koy jële mu ne dinañ génne asakaay gerte te suñ bàyyi waxatoon loolu ñu bàyyi na ko ah man de damaa amut lu ma jëndee payit ak lu ma jëndee timbre su ma bindee ba pare waaye man su ma amoon këyit ak njëgi timbre man mën naa koo tontu mu ne maam xalifa ne kon ma utal la riem këyit ci la bàyyi benn téere boobu su koy rijee itam borom xam-xam la buñ jàngee téere bi mu wax ne ca gannaaw waxoon naa ne gerte war nañ cee génne asaka waaye bi ma ju- bindee bi ma jàngee téere bii borom xam-xam ba ca Soudan bind ndax booba jëm fii yëpp Soudan lañ koy tuddee Sénégal ak Mali yi yëpp Soudan Soudan rek lañ ko bilaad di Soudan la woon dégg nga dellu naa ca xa- loola ma waxoon bu njëkk gis ne au lieu ñu génne asaka ca gerte ga nañ génne asaka ca diw ga ñu ne bàyyi bindaat ko leetar ne ko su fekkee lu am diw rek war nañ cee génnee asaka kon garab gi tudd tiir fii ci ñun lan lañ ci war a génne ak lan mooy misaal dégg nga bàyyi daal moom àndutoon ci génne asakaay gerte waaw moo tax ñuy wax ñi yëpp tey taxaw rek ci télévision wala taxaw ci rajo rek di weddi borom xam-xam bu waxoon ñoom bàyyi ba ñu weddee dañoo taxaw dañoo bind téere indi seen i argument tëral waaye yow sañ-sañ yi wan mën naa wax déedéet rek moo tax nga taxaw fii di wax amul benn laay amul benn xadis ba nga xëy da nga ko indi preuve pour ci li ngay wax yëfi caaxaan la ak yab nit ñi sax ah dégg nga te nit ñi fi ne ñëpp a jàng waaw ku jàngul sax li suma yaay di wax rek mu ne ñi doon nelaw sax riiram ñi doon ñi xeewu eexaale na leen waaw ñi eewu di yëngatu rek eexaale na ñi doon nelaw ah kon nag fi ne kon kenn dafa tut fexe waxtu wooy wax ak nit ñi nga xam li ngay wax def def te sabut comme li maam alaaji daa wax maam alaaji abdoulaye daf daa wax ne abdu du jaamoo yàlla masalaam daaw maanaam masala moom kan seetu ko daaw ba ren moom du ko jaamoo yàlla ren alors foog li muy jaamoo yàlla waxtu wu nekk mu di ko gis mu di ko leer bàyyi mu ne def ci xiroon ba ñaari saar yi muy julli jee eet sax dana xëy nafat ko balaa dem ca julleekaay bi waaw te kaang la woon dégg nga loolu yëpp pour xër xër ci wax nit ñi lu leer ak lu wér waaw doomu aadama dafay fàtt gannaaw fàttee ngi fi waxtu wu nekk di leeral sa xam-xam di ko jàngaat dafa war bàyyee ngi nii su gàmmu jublisaan tam xarit la ñuy commencé di ko liiral téere siira yi bu jeex rek mu ne wàcceel bële waaw waaw dañuy toog néegam di jàng ba deux heures demi ci guddi waaw mu soog laa wax demal tëri te mënoon mënoon naa mënoon naa gàmmu comme ni ñuy gàmmaw ci sa xel ne off head di nga fàttali ko da nga wax ci rek mu jeex waaye déedéet moom dafa amoon sujet daf koo jàng itam xam li muy wax gàmmu goo déglu rek da nga ci dégg lu bees ndax daf ko doon jàngal jàngoo tari feni neen dégg nga loolu la olof wax ñu ne jàngoo tari feni neen waaw waaw si da ngay gis ki nit sëriñ bi gàmm bu bërset yow doo doo dégg hadis doo dégg laay laay alquran waaw yooyu yëpp yëpp yëpp nit ñi la sax te yow loolu la loolu la nit ñi ooxee sëriñ bu wax ba mu jeex te amul aaya amul xadis déglu télévision bi rek
waaw
nit ñi daal soo leen respecté li ngay wax ak ñoom da nga koy jàng bu baax dégg nga waaw seet sujet yi bu baax masala yi nga seet ko delluwaat ci jàng ko waaw of xeet nii rek déedéet yooyu yëpp nit ñi la sax wala yooyu yëf yi yëfi meeting la xaw la xaw la yëfi meeting sax xanaa war ngaa dajeeg ay nit ngeen rab li ngeen war a wax bopp yaay jàmm rek alhamdulilah waaw am na benn question maanaam gaa yi doon laaj maanaam ci la ci gàttal la pour soo ñu mënee résumé à peu près moom dernier 24 heures bàyyi ñi nga xam ne suuf na ko moom dernier 24 heures bàyyi ak moom ban ay alxuraan moom la bàyyi daal bàyyi daal jullit bu baax la woon waaw jullit bu baax la nit ku baax la nit ku tabe la nit ku am xam-xam la nit ku am yar la waaw lu lu ànd ak yarat di ko ak ñaaw jikko rek loolu du bàyyi waaw waaw nit ku yaru ba yaru ci sa kanam doom dégg nga mas naa nekk Dakar man maa ngi nekk Dakar maa keeg maa ngi fii ci dëkk bi bàyyi di ma oo pour yónni ma ci ñoom kaay téléphone ba jot ma ca Dakar kaay damaa bëgg nga ñëw gis màkkeeg maam nga wax leen nangam ak nangam te man mënuma ci màkkeeg maam la nga koy bàyyi mënu ko ci waaye loolu yar la rek maa nga Dakar mu di ma oo pour yónni ma ci ñoom kaay ñu ngi fii ci dëkk bi kaay nga toog ak ñoom nga wax ak ñoom yar boobu nag moom moom la nekkee ba ba mu uj ci borom mook alxuraanam mook diineem mook tabeem mook léppam ak gëm yàlla gu mat sëkk kontaan ci dogali yàlla yépp itam dégg nga maa ngi fàttaliku bés ma ñëwee suba teel jox ko loxo loxo bi sedd ma ne ko bàyyi ah sa loxo yaa ngi sedd dangaa liw moom mosuma liw ci suma tund ma dem oo docteur bi na ko kaay sedd seddal ma góor gi man di loxo mi dafa sedd ak man bi bi docteur bi ñëwee làmb loxo yi nee na xol bi moo commencé taxaw waa deret ji circulé tut ndeysaan fekk daf maa waxoon ne lu la docteur yi wax rek na mu ko wax mu ne lu mu wax mu ne ko mu ne xol bi moo commencé taxaw mu ne alhamdulilah moo tax benn bindkat ca London laaj na ma ne ma sa maam bi mu demee ba xam ne dafay dee ndax boobu jàq na te na ko déedéet alhamdulilah sax la wax waaye sax la wax
diggante moom ak ma alay ak ma na ma laaj ñaata at diggante bàyyi ak ma alay ci lan ndax may ñu koy jox ay xibaar dañ xam ko ah moom moom ku jege woon bàyyam la ku jege woon bàyyam la ku daal liggéeyal bàyyam ku dégg bëccëg ba ñeneen ñi di ko ñaawal sax nekk góor guy liggéeyal bàyyam comme jigéen ju nekk ci néegi sëy moo nekk daa wax di taxani di ko defaloon matt mu jaaru
macha allah.
bàyyam rek xadis bi yëpp dañ ko def ci ordinateur lise printage yëpp mu ngi ko def ci kër gi
Baye ci ñaata at la tari alxuraan.
waaw xam naa teel na dina wax ne na ma Cheikh Faye bàyyi Kabir Faye yéen mooy su jógee am Banjul ñëw ñoom ñëpp ñoom xale yëpp dañ koy dañ koy gàttandu ndax biskit yi ñu leen daa indi la yu demee noonu moom Cheikh Faye ñëw mu ne xale yëpp njëkkalante di ko nuyu ku nekk muy laaj yow kuy sa saar yow kuy sa saar mu di mu accès ci moom ne ko yow gën a kuy sa saar kuy sa saar mu ne xale yi nag kii mokkal na bu yàgg
macha allah.
mu ne ñu ne ñu ne ko mu ne mu ne kuy sëriñam ñu ne xale yi ne ñun de xamuñ koy ku koy jàngal waaye mokkal na bu yàgg mu ne kuy sa baay mu ne ko bàyyi mooy sama baay mama laaj Cheikh Faye jàpp ko ci loxo dem ba ci mama laaj ne ko bàyyi bés bu ma la gisatul rek kii mooy sama sëriñ ci xale yi waaw macha allah.
waaw
kii xaaju xaaju papa yi Misri ñëwam ci Baye ñëwam ci maam Alaaji moom naka la woon.
Abdoulaye Wul Xaaj waaw.
waaw moom xarit mama laaj la rek dafa daa ñëw naa laaj te nangul na ko wilaayaam ak xam-xamam ak nekk mbër ci tariqa beeg yëpp moom nag daf daa ñëw fii comme ni fi naar yi daa ñëwee di laaj ci addiya su jógee dem